élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. Diomaye président. Diomaye président. Diomaye président. Diomaye président. Diomaye président. Diomaye président. Diomaye président. Diomaye président. Macky dégage. dégage. Sonko libérez Sonko libérez Sonko libérez Karim libérez Sonko libérez Karim élection par force élection par force élection par force élection par force par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. Diomaye président. Diomaye président. Diomaye président. Libérez les otages. Libérez les otages. Libérez les otages.

Ndella Ciss. libérez Ndella Ciss. libérez Karim Gueye. libérez Karim Gueye. libérez le 6 libéré dans le 6 élection par force élection par force élection par force élection par force élection par force élection par force élection par force libéré Sonko

libérez Ndalla Cissé. libérez Ndalla Cissé. libérez Karim Bey. libérez Karim Bey. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. élection par force. libérez Sonko. libérez Sonko. libérez Diomaye. libérez Diomaye. libérez Fadilou. libérez Fadilou. libérez Amidia. libérez Amidia. libérez Sonko. libérez Sonko. maa kii na si dëkk fii doomam Xaadim Mbeng Macky Sall moo ko jàpp tëj ko dugal ko si kaso bi. libéré Xaadim Mbeng libéré Xaadim Gueye soxna si. masawu mbokku jokkul mbokku Sénégal moo xam dañu jàpp sa doom moo xam dañ ko lompoñal moo xam dañ ko rey di masawu ñooñu ñëpp loolu moo waral ñu taxaw fii si buntu kër gi Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall Macky Sall assassé Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur Macky Sall dictateur dictateur Macky Macky Sall dictateur. Libérez Ngalo Ciss. Libérez Ngalo Ciss. Libérez les otages. Libérez Ngalo Ciss. Libérez Ngalo Ciss. Libérez Ngalo Ciss. Libérez les otages. Libérez les otages. Libérez les otages. Libérez Ngalo Ciss. Libérez Ngalo Ciss. Libérez Ngalo Ciss. Libérez Ngalo Ciss. Libérez Ngalo Ciss. Libérez Karim Fay Libérez Karim Fay Libérez les otages Libérez Karim Fay Libérez Sénégal Libérez les otages Libérez Sénégal Libérez Sénégal Libérez les otages Libérez Sénégal Libérez Sénégal Libérez Dalasi Élection par force Élection par force Élection par force. Élection par force. Élection par force. Élection par force. Élection par force. Élection par force. Élection par force. léegi xoolal ñu doon ah. mooy këru Ngalla Ciss. mooy këru Ngalla Ciss. moo tax ñu taxaw fii pour jëmmal Ngalla Ciss. pour sargal Ngalla Ciss. pour waa këram. pour masawu waa koñam. pour masawu ay mbokkam. ne leen ñun fàttewuñu Ngalla Ciss. na leen ñun Yalla Ciss fu ñu toll xamu leen fu ñu toll et que incha allah xeex bi dinañ ko wëyal ba Ngalla Ciss dellu si si jàmm ak salaam si nga xam ne waru fi woon mos a jógee. libéré Ngalla Ciss. libéré Ngalla Ciss. libéré Sall le dictateur. Sall le dictateur. bon salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu alors ñu ngi masawu famille Ngaye si di masawu aussi famille Abdou Karim Bey bi nga xam ne mooy coordinateur Rufisque euh, Ouest libéré Karim Bey libéré Karim Bey libéré Karim Bey libéré Karim Bey libéré Khadim libéré Khadim libéré Karim Bey libéré Khadim libéré Khadim

par force. Élection par force. Élection par force. Élection par force. Élection